asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme nuñ ko safoo di ko defee di leen dalal fii seen chaîne Dakar People tey nag ñu seet ci kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable Cheikh Ibrahima Diassé borom résultat borom jinne yi sëriñ bi nuyu nañ la. waaw alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi wa alhamdulilahi lidi adaana li aada wa ma kunna li naxtadiya lawla an hadaanallah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sa alayhi wa di leen ndokkeel bu baax yéen waa Dakar People macha allah macha allah sëriñ bi fay nañ la tey nag ñu setti la pour am ak yow waxtaan waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bëri ci xam-xam question bu si njëkk rek ñu gis ni ñu ngi dëgmal gàmmu gàmmu muy événement bu rëy ñu ci feetal guddi yonent sallallahu alayhi wa sallam mais dañu gis ni Sénégal am na benn oustaz boo xam ne ni dafay nekk di wax que ni gàmmu nekkul lu wér bi daala waaw alhamdulilah gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne lépp lu yàlla lépp lu do lépp lu am rek yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax yàlla xamal ko si xaalam bi yëpp euh, te tamit wax na ko fenn ko ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin yónni naa la nga nekk koo xam ne da ngay nekk yërmaane te doomu aadama bu dañee si yërmaane yàlla rek kon kooku mbiram amatul solo si àdduna te dañu wax ne képp koo xam ne jar na toog di waxtaanee rek toog waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ëpp solo foofu parce que lépp lu yàlla di maye rek lépp loo wax ne du yàlla rek loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mérito na loolu yàlla dem na bañow ba nekk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak ni mu màggee ak ni mu fooree julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te julli ak yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du dara mooy jël mboolem loo xam ne ay bagage am la rek mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, boobu na nga wax kooku moom duñ ko jàppee oustaz parce que kooku seytaane sax lañ koy jàppee parce que lu tax mu nekk seytaane mooy nga toog ay nit wër la ngay wax waxoo kenn parce que tey bu fekkee ne julli tey Sénégal fi nekk jullit bëri na au nga fexe xëcc ñoon dugal leen ci diine ji Oustaz Omar Tall amut kenn koo xam ne mën naa toog ne dégg na ne kii dugal na ko ci diine lislaam amut waaye mi ngi mi ngi mi ngi bañ ñi nga xam ne ñu ngi jël ay nit di leen dugal ci diine lislaam kon kooku moom noonu la si mën nañ ko tuddee noonu sax si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que bu fekkoon na xaritam la dana fexe dugal mboolem koo xam ne ni tey yéefar la mu dugal ko si diina ji waaye suñ mag ñi baax ñi nga xam ne tey dara du seen yitte lu may fexe ba gàmm bu dul dara waaye gàmm su paree da ngay gis tey ñaati million personnes wala ñaati junni nit tey ñooy dugg si ngir di tagg yonent bi sallallahu alayhi si ay jukkoom yoo xam ni tey kenn mënu koo wax kenn mënu koo jeexal si ay guddi kenn mënu koo jeexal si ay si ay weer tan nag moom ni mu toogee ni ñi da ko invité pourtant li mu toog noonu di waxtaan ci lu ñaaw bu ko toogoon wax ko si yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dana ko gërëm di waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam si juddoom si balaa muy judd si ba mu juddoo si fu mu jaar si fu mu wàccee diine ji lislaam si ñi nga xam ne ñi topp neen ko parce que lislaam du na tey rek la neex waaye toll na diggi ñeent rek ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko topp kon nag liggéey bu rëy boobu noonu jar naa toog sa dund yëpp nga waxtaanee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom muy wax loolu moom moom lañ jàppee ne moom noonu la si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce daf koy liggéeyal daf koy wax nit ñi xam mooy kan parce que bis daan jot su bisi judd jotee daan na jël ne da daan na rey gàtt loolu addis bu daan na rey gàtt soo xawee mën a zaako yow ma wuli bés bii mooy sama bisu judd kon kooku yàgg naa feetal koy defee man maa màgg wala nangam loolu nit ku baax ko def waaye yonent bi sallallahu alayhi rus na loolu waaye ñun ñi nga xam ne defal nañu lu nekk ñun moo tax na ñun suñ guddeeg suñ bëccëg lépp da ko koy jox. salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah kàddu yi am na solo trop leeral yi am na solo xam naa bu ñu paree ci loolu rek buggoon nañu waxtaanee pàcc yu bari ci wàllu xam-xam yu si mel ni seet. sëriñ bi dañuy dégg souvent nit yi di wax seet seet ana lan mooy njëriñu seet ana lan mooy dégg déggi seet. waaw njëriñu seet hmm, bi nga bëggee seet si yàgg na. alhamdulilah waaye nag du heure bu ñu bëggee wax rek dañuy wax dafa nekk loo xam ne mooy tegtal yoon rek parce que doomu aadama bi pour nga jógee sa kër dem si benn kër il faut nga xam fi nga jëm fan la loolu mooy set mooy ki lay wan ki lay dindi ki lay tegtal léegi sa gën naa gaaw loolu tey tubaab bi dem na ba génnee empreinte nga xam ne doomu aadama wala mu mu mu jël loo xam ne tey localiser euh, localiser am na nit ki ak fu mu mëntu nekk tey mën nga ko localiser ba xam ban barab la nekk ak lam fa nekkee loolu baatin bi moo gën a gaaw tey li su xaare sax tey mën nañu wax ne tey ñun si wàllu toog sa di fanaanoo loolu dañ ko dépassé léegi xam-xam bi gën naa gaaw loolu mën nga ñu toog léegi léegi léegi ñu xam sa tur ak sant wax la mbooleem loo xam ne ni tey mu ngi ci yow bu fekkee ne fi nga nekk baaxu dañ la fa jëlee bu fekkee ne tamit dangaa yelloo dimbale fi ñu toog lañ lay dimbale waaye nag dépanut li su li su xaara bëri na ay façon bëri na ñuy defee ci suuf ba ñuy defee su ndox bëri na tey nag yoo xam ne tey bi gën a gaaw tey mooy bi nga xam ne dangay toog léegi ji di ñëw wax la na la kii lii ak lii mooy soxlaam nga wax loolu su boobaa tamit mënu leen lii ak lii moo xëy saafara bu a gaaw foofu ñun nag boobu leen toll tollatoon tey juyóor ñetti nit ñeenti nit nga fanaanoo ñoom boo xëyee wax leen lu kenn xamut déedéet affaire bi dafay gaaw te da leen wax lu leer te li nga leen wax dara nit mindee fiy dund ci àdduna mënu koo dindi macha allah tontu yi am na solo trop xam naa suñu paree ci loolu tamit bëggoon nañ waxtaanee jafe ji nga jafe-jafe yi nga xam ne doomu aadama yi des fois mun na leen gàllankoor yu si mel nii des fois ay accident wala ay liggéey wala ay dee si lakk te xataa tey jii mun nañ ne am na ay ñaan yoo xam ne wala ay gàllaaj yoo xam ne jaamu yàlla yu tey jooyu bu ko jëfandikoo suñu borom mun na leen musal si musiba yu ni mel. waaw alhamdulilah parce que doomu aadama buy dund ci kaw suuf toujours dafa nekk ci erreur erreur mooy doomu aadama xamu dara parce que yaa ngi dox te li ngay dox xamoo sax fi nga jëm xamoo li ngay def waaye nit ki dafa war a fexe aaru bu baax a baax. tey gàllaaj yoo xam ne tey nikki bu koy takk koo ko liggéey dafay de loolu moom jaru sax dem ñëw bu xëyee def ko bu guddee mu delluwaat ci moom amul ñaari fan amul ñetti fan loolu amul amul amul loolu te te tey tamit li gën a li gën a yéeme tey ci wàllu yi nga xam ne gàllaaji kaso parce que man sama gàllaaj bi ma lay wax ni ndoom bi lay wax ni ku ko takk kaso moom doo fa dugg loo mëntu def tamit dañuy ñëw arrangé ko mu jeex ata ngay nekk ci oto ji accident yu demee parce que tey accident yu bëree bëri tey ay li doomu aadama ñoo koy fabrique yàlla ji tey li muy def tey bëriwul lool de ci des ci ëpp ay doomu aadama ñoo koy def ni ko war a am nit ñu war a am bari nañ nekk milliardaire amuñ dara nit ñu war a weer bëri nañ am weeruñ nit ñi nga xam ne tey seen cër yi dañu dem ba fas ko ñii mënuñ am jëkkër ñii mënuñ am doom ñi si ëpp ay liggéey moo koy def waaye yooyu moom dañuy jël delloo la ñuy dañ koy jëlee si nit delloo ko boromam borom nag su paree dañ ko taxawal taxaw goo xam ne képp koo ko liggéey dafay dee loolu amu dem ñëw gàllaaj la goo xam ne tey ñaari côté yëpp dañ ko mënee muy zulmaaniya ak nuraaniya parce que booy wut dangay ngay wut ñaar yëpp mu ngi nii rek zulmaaniya ak nuraaniya képp ku ñu bëgg a dammate tey du ñu ñoo koy def ay jinne la ñu yónnee léegi léegi léegi liñ bëgg liñ la bëgg a def dañ la koy def waaye liñ la bëgg a garanti tamit dañ la koy garanti loolu moom alhamdulilah ñu ngi ci sant bu baax. macha allah tontu bi am na solo trop leeral yi am na solo trop xam naa bu ñu paree ci loolu tamit bëggoon nañ ñëw ci wàllum lotori nga ciy yëngatu suñu borom may na la ci loxo bu gudd ñu bëggoon xam numéro yooyu ñuy jinne yi si jinne yi ñoo la koy jox wala lan la. waaw wax dëgg yàlla loolu moom mën naa wax ne sax duñ toog si di si waxaat parce que tey ñu bëree bari tey ñu ngi bitim réew war a am am bu gaaw waaye am bi dafay yéex trop moo tax tey móor-móor yu bari wala ñu bëri tukki woon na ñibbi si neen parce que am-am bi tey bu njëkk nag at amoon moo tax waaye léegi du ñun ñoo koy tànn ay jinne ñoo lay tànn danga am lañ la jëlal rek jëlal loolu nga dem nekk milliardaire léegi léegi léegi moo gën a gaaw parce que nit ñi liggéey neen jaamu yàlla liggéey neen ba sonn mais munuñ am waaye nag yàlla toujours ak wërsëgam bu yaatu ak yërëm jaam yi dana indi yeneen mbir yoo xam ne mooy gën a gaaw muy wàllu xaalis xaalis nit ñu dépassé neen ay sango 40 jours euh, rek 30 jours rek 2 euh, mois 50 1 an loolu nit ñu dépassé nañ ko xam-xam romb na foofu bu yàgg kuñ bëgg a kanaa lu ñu bëgg a def doomu aadama waaye kuñ bëgg taal léegi léegi léegi léegi léegi léegi dañ lay taal kuñ bëgg a tamit indil jafe-jafe loolu tamit beneen xam-xam la muy mooy xam-xam musulmaan yi ñaar yooyu yëpp yàlla dimbala ñuy si bu baax a baax ñeewuñ ci doomu aadama sëriñ su bëri tey ku si am problème tey pour jafe-jafe wàllu résultat su ñun lay ñëw ñu jàppale ko si loolu loolu alhamdulilah macha allah daanaka comme ni ñu ko waxee rek mbirum lotori yi suñu borom may na si loxo bu gudd ak tamit mbirum am-am bu gaaw nga xam ne xataa tey jii ni nga ko waxee ñi war a am am na loo xam ne milliardaires yi bëri nañ si réew mi mais bu ñu xam parce que des fois wërsëg yow doo toog rek mu ñëw ya ngay dem fekk si ko mais tamit bëggoon nañ xam lan mooy waral nit tey jii mu nekk ki nga xam ne dafa war a am te jëfandikoowul ay affaires yoo xam ne tey jii moo ko war jàppale ba tey ji am-am boobu mu gaaw. waaw parce que ñu bari jug neen waaye xamuñ ci ñun jëm parce que tey boo gisee ñi génn di wax looloo tax rek parce que ñi war a wax foo ñu wax ñi war a wax bu ñu waxul ñi wartu wax ñooy wax te bu ñu waxee tamit mën nañu réeral ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit mbiri sotti wax dëgg yàlla tey ñu bëri ñu ngi jël seen xaalis tamit di ci def yoo xam ne tey wax dëgg yàlla ci résultat waaye moo tax tamit ñun ñi nga xam ne tëju nañ ba ñi nga xam ne am nañ doon dund yoo xam ne tey loolu moom ñoo ñuy forcé tey pour ñu taxaw wax dimbale jaamu yàlla yi moo ñu tax a jóg mais du ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla si yàlla bi nga xam ne tey moo ñu wërsagal lépp loo xam ne nii tey xam-xam la te loolu sant yàlla la bu ko neexoon xam-xamam bii tey duñ ko wuti waaye jëflante neen ñoo xam ne tey nekku ay nit ay jinne leen jëflante neen tamit nit ñoo xam ne ay borom xam-xam yu leer ci wàllu nuuraan yi ci wàllu alxuraanil karim bu leer nañ biñ jotee jàng jot na biñ jotee mokkal mokkal nañ biñ jotee gëstu xam-xam gëm gëstu nañ ko biñ jotee tamit dugg ci wàllu asara def nañ ko ñëwul ci benn doomu aadama lépp luñ bëgg a def tey ci doomu aadama dañ koy def amul suba amul ginnaaw suba gën naa xam-xam gën naa yee yënki war loolu parce que yàlla tey mbiram yëpp tubaab bi yëpp seen technologie léegi changé na lan moo tax borom xam-xam yi seen mbiri changé wul lan moo tax ñi xam ñi xamul nekk ci kanam ñoo bëri ñi ñooñu nag nañ dégagé wu ñi xam taxaw ci kanam dimbale jaamu yàlla yi parce que jaamu yàlla yi sonn feebar bii nii corona bi yaa ah, mën naa ne lu bëree bëri tey boo gisee tey ah wax dëgg yàlla sëriñ ci góorgóorlu nañ ci bu baax soo gisee Sénégal tey résultat bu ñu ci am amul bu ko am ñooñu ëpp matériel fuf waaye tey wax dëgg yàlla Sénégal nañ sant yàlla bu baax ay ponkal ñu ngi fi ay kilifa ñu ngi fi ñoo xam ne tey lépp lu ñu wax yàlla yàlla da koy def loolu moom amuñ ci sax dem ñëw loolu yàlla la moo ko jox Sénégal te moo ko jox ay nit Sénégal gëstu ko fu nekk yàlla nag ñëw na ak ndimbalam parce que xam-xam yàlla moo ko moom moo koy jox ko ko neex anal fadl bi yadillah yuti man yasha ngeneen la boo xam ne yàlla moo koy jox ko ko soob alhamdulillah macha allah macha allah xam naa bu ñu paree ci loolu rek bëggoon nañ tamit waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne moodu-moodu yi même sax ñu nekk ci biir ak biti réew bi dañ koy am moo ci wàllum papier tey jii suñu borom mun nañ ne may na si loxo bu gudd ba tey jii am nga ci ay résultat lu waral tamit tey jii ñu lay dàkkantele borom résultat yi ndaxte mbirum papier daanaka sax waxoon nga ne doo ko waxati fenn ndaxte tey jii suñu borom macha allah defal na la ci ay tawféex yu baree bari bari lan mooy secret bi. yàlla la parce que résultat ñun euh, loo gis ñu def dañ koy appal sax date te ñu si bëri tey ba leen waxee date ñu noo déedéet wala ñu def ñu xaar yàlla loolu am na waaye ñun yoon bi lay teg amul suba amul gannaaw suba dama koy insisté bu baax di wax lu demee noonu du may yàlla nag waaye yàlla dëgtal na ay yoon yoo xam ne tey donc jàmm bu si jaaree li bëgg yàlla rek yàlla nee na ñaan leen ma may udoon ni astajub lakum ñaan leen ma may leen waaye nag boo ñaanee yàlla mayul la si côté bi nga bëggee yow waaye war laaj ba xam yàlla na ko yàlla nan lañ lay ñaanee sëriñ loolu rek mooy tax nan mooy ñaanee nga ñaan fu nekk nga jaar bunt bu nekk nga ñaan waaye gisoo bunt bi nag na nga def attention xam ne yow mii ñaankat war ngaa taxaw xool sa bopp ba xam ndax li ngay ñaanee ñaanu ñaanukaay la wala du ñaanukaay dégg waaye nag wàllu kayit moom duñ lay dañ lay appelé ay bés ak loo fu mëntu lijjanti tey si kayit boobu noonu da nga toog fi nga toog ñu dugal la ko sa boîte na ko dama jëli ci lu gaaw bu fekkee ne nangu ngaa topp suñu tegtal si fan yu gaaw nga jot li nga xam ne moo ci càkkuteef ci loolu nga nekk ci dëkk amoo fa am fa barab boo xam ne nit ñi dañuy xëccoo ak yow dañu leen fexe ba jox la boo xam ne yow moom nga méritoo parce que Sénégal yu dañu nekk ci place ñu leen di xeex ci ay place ñuy génn métti wala Sénégal kii sa fii danga koy gis ñu xam ne ñu ñi am nañ capacité bu baax pour liggéey waaye dafay bëri xeex ba nit ki génn place bi wala mu indi indil ko feebar te yooyu yëpp doomu aadama bi war na ci yëngatu bu baax a baax loolu nag moo tax ñu jóg pour dimbale jaamu yàlla yi ci côté yooyu noonu weddi na daal xam na ko wala xam wala mën na ko ak mënu ko oo ñu téléphone léegi léegi ñi wax la def la ci lu leer nañ nga teg sa bët amul suba amul gannaaw suba incha allah loolu mën naa ko macha allah daanaka mënuñu tëj waxtaan bi sans pour tamit ñu waxtaanee ci may may yooyu mbirum jaaro bi est que mën nga ñëwal si sa mbiru jaaro yi balaa ñëw tëj émission bi. waaw dëgg la parce que jaaro tey ñu bëri mënuñ takk téere kooku danga leen noppal bu baax pour ñu takk jaaro xoolal jaaro yi nga gis yëpp dañoo dem ba dañoo ñuul kukk nit di liggéey tey nekk ci barab tey am lu mu yore yoo xam ne bëggu tey nit ñi gis ko loolu tey ak kum mu bëggul mu gis ko kooku du ko gis ku la gis nu lay jàppee ngay lijjanti kay léegi léegi léegi nga dugg ci léegi dugg def ko léegi booy dugg ci mbir yi mu yomb ci yow maanaam mbir la boo xam ni daal doomu aadama bi du sangu mën na ko bu ne mën naa bañ sangoo dara parce que nit ñi dañoo sangu ba sonn léegi sangu neen takk neen ba sonn amut waaye foo ñu changer méthode bi sëriñ si di liggéey ba fees sangu ba tooy xep loolu taxul du mbir yi mbir yi secret la boo xam ne moo tax doomu aadama di dox doomu aadama bu dox tey suru lay doxee bu suru bu jógee si moom la dafay dee kon mépp nit di dox rek tey li muy doxee mooy suru mooy mbóot loolu nag ki si yëngatu ki si yàlla may dara kooku si mën a wax dara. macha allah sëriñ bi mën nañ ne waxtaan bi daanaka am na solo trop yàgg nañ ko bëgg yàgg nañ la seet si mais tey jii nga ñu suñu borom may ñu ñëwaat tey jii nii kii nii ñëwaat def émission bi tamit balaa ñëw tëj émission bi bëggoon nañ tamit nga ñëwal ñu lan moo waraloon tëj tëju bu yàgg bii nii tey jii. waaw tëju bu du dara lu may bëgg jaamu yàlla yi jot ci càkkuteef parce que ñaan dafa métti ñaan lu jël alal def ko ci ñaan te gisoo dara dafa métti comme nag balaa ngay toog di ñaan lu fexeel ba am sa kaaraange gu wóor ba dëgër bu baax a baax ba nga wóor ne tey loo wax doomu aadama bi loolu kenn du ci teg baat te li ko wax da koy gis amul ay ay ay lu kenn xamul daal métti na parce que ngay wóor ay at di génne ay million di ko def si ñaan te tamit li ngay gis méttiwut da ngaa jaar si yoon bi rek wala nga gis ñu war a wax ñoom ñoo waxut loolu nag dafa jot tey ñun ñëpp ñu génn tey ñi nga xam ne xam ne nekk si ruq yi wax dëgg yàlla dañuy dugg xolu dañuy jëflante mboolem loo xam ne tey ay ay mbindeef leen si kaw suuf parce que kaw suuf gi yàlla ni mu si wàccee dafa bëri bind na fi doomu aadama jindi yaa fi malaaka yaa ngi ñëpp ngi dox ci suuf waaye tey ku ci nekk rek am na xam-xam boo xam ne tey moom la yàlla yënkiwal nga mën si dimbale jaam yàlla yi doomu aadama nag ni ko yàlla bindee dafa xaw a néew doole trop bokk ak ki nga xam ne tey dañuy tuddee jinne jinne tey kàttan bi mu am tey nàmpam rek fanweeri fanweeri at lay diire muy 30 ans doole ji mu am tey mën na mën na wax noonu la ko ëppee doole tamit bokk nag nit ki fi mu nekk mën naa soppaliku lu nekk tamit ñëw jëflante ak yow kon tey wax dëgg yàlla kooku mooy jàpp ci mbir yi ba nga xam ne tey foo ko yónni ci àdduna dafay dem parce que ñoom mën nañu jógee fii léegi léegi suba ñu dem fu leen neex ci àdduna bi loolu kattan googu ñoom la ko yàlla jox lu ñu bëgg dindi si doomu aadama tamit mën nañu ko dindi kon pour nga liggéey tamit pour nga mën a dimbali jaam il faut que nga am kattan googu xam ne da ngay am ñoo xam ne ñoo la ci dimbali loolu mooy tax mbir yi gën a gaaw moo tax depuis daaw ba léegi wala daaw yéen a may soxla pour jot ma waaye wax dëgg loolu moo tax rek maa ngi ciy jégalu bu baax su ma sañoon chaque jour ngeen ñëw introduire ñu waxtaan ak yow si xam-xam parce que loolu mooy jëriñ jaam bi waaye nag comme ni ma la waxee rek looloo tax tëju bi moom métti te seeni mbir dafa xaw a doy waar da nga leen di tàggatal da nga leen fexe tamit ba yi nga xam ne tey say maam yi joroon nañ ko ñu réer la nga récupérer leen amoon na si fukk ñaar yoo xam ne dañ maa réeroon si jamono yi passé laa doog a jot si ñoom mooy ñi xam ne tey si wàllu nga xam ne dañuy génnee numéro yu gaaw yeeg yu demee noonu mooy yu gën a gaaw rek yooyu fan yi laa si jot parce que âge bi moo defoon moo tax waaye alhamdulilah tey ñoom ñu ngi toog di xaar ku leen yónni mission ñu doxal mission yi loolu rek la ñuy xaar fu nekk nii alhamdulilah macha allah waxtaan bi am na solo trop mais daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne daf ñu tënk xam naa dañuy ñëw bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokki internet waaw sant yàlla bu baax rek julli ji julli ji waat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga ne ñu ngi ko nangu si yërmaaneem parce que yàlla moo ko waxoon nag muy mooy raxmaan yotullaahi bi mooy ki nga xam ne tamit mooy yor trésor boo xam ne kenn yoru ko ci àdduna yor tamit yàlla wàccee ci moom alquran boo xam ne wàccul ko ci mbindeef bi dox ci kaw suuf lépp teraanga rek yàlla teral na ko kon nag weer boobu bu jotee dañuy màggal yàlla dañuy màggal yàlla waaye dañuy màggal si buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ku bëgg jot si yàlla rek da ngay jaar si buntu yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy buntu yàlla kon tey bés bu si jotee ñun dañ ko màggal dañ ko tagg dañ ko kañ dañ ko yëkkati dañ ko teg boo xam ne ni tey teguñ fa sax suñu yaay yi ak suñu papa yi ak suñu alal ak suñu doom yi moom fu ko teg teg ñu fa kenn kon nag weer sant yàlla bu baax di dénk nit ñi ne leen ah wax dëgg yàlla ñi xam nañ wax ñi xam nañ def ñi xamul nañ toog ñëw topp si ñi nga xam ne xam neen ñu orienté leen waaye xamoo di def loolu dafay wanal tamit rëy dafay wane tamit nga lor koo xam ne tey waroon nga ko dimbale ñu bëri tëju nañ tey yi ñuy jëfe jëfandikoo yoo xam ne amul solo moo tax waaw kon nag ñu ngi dénk ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu yi waaye lépp bëgg nañu yeewu bëgg nañu jëriñu bëgg nañu wér bëgg nañu am looloo tax mu doon ñun kenn kese dañuy tëdd fi ñu tëdd jàpp suñu jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax parce ñu bëri ñëpp si neen tey ji Sénégal émission yi alal yoo xam ne tey ñu ngi liggéeyloo ay tubaab lan moo ko waral mooy dañoo jaar si yoon bi rek alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah